bàyyeekoo ci kookee gàll ay tuuma ci ndoddam vox populi ne ko gendarmerie bu kër Massar foofee la ñu ko doon auditionné niki démb ba ñu noppee nag bàyyi nañu ko mu ñibbi ci ay mbokkam ndax ragg na aw dara ma yéene kaay bi ne ay coowal tuuma yoo xam ne rek dafa jëm ci benn milliard bu ñu ne da koo yore ca këram waral ba président bu géej Guédiawaye football club nag fas yéene porte plainte jëmale ko ci kaw Ibrahima Diagne mi nga xam ne rek moo fi nekkoon directeur général bu club boobee moom moomee di Lat Diop di xam ne ni indi naa ay leeral ci sama digganteeg waa gendarmerie ñeel li ñu may tuumaal fi mu toll nii sama kër tranquillement maa ngi nii toog ci sama njaboot envoyé naa ab citation directe nag ki nga xam ne moo ma tuumaal te it dinaa ko porter plainte ci kanamu tribunal su boobaa nag moom dina leeral ndax damaa yor koppar yu ñu toll ci sama kër am déet ndax lu nu mel nag ay tuuma la yoo xam ne dafa rëy lool te mën na maa indil ay jafe-jafe mbaa indil ko sama njaboot yéenekaay bi ne coow li nga xam ne rek moo dox ci diggante Lat Diop ak kookee di Ibrahima Dieng nag ak coow lu yàgg la loo xam ne rek dafa doxoon ci diggante ñaari dirigeant yooyee nga xam ne rek ñoo jiite Guédiawaye football club ab règlement de compte lañ lañu ko mën mu soxal ab coow loo xam ne rek dafa amoon ci ab détournement boo xam ne rek dafa toll ci cent soixante cinq millions ñeel transfert bu Mamadou Sané foofee ca Chypre Lat Diop nag ma ngay xam ne ni dana amal ab plainte jëmale koo ci kaw Ibrahima Dieng les ko yëglekaay xëyee moom itam tuuma yi ñu tuumaal Lat Diop mi nga xam ne rek moo fi nekkoon jiital LONASE ni ab détournement moom la ñu koy tudd ci wàllu koppar démb nag ginnaaw bi ñu ko dégloo ba noppi dañu koo bàyyi mu daal di ñibbi këram fi mu toll nii nag ma ngay amal contre attaque weddi na lépp loo xam ne ñu gàll ci ndodd ndoddam l'observateur xëyee moom itam ba tey lu jëm ci wàllu yoon ak audition bi nga xam ne rek démb amal nañu ko ci diggante gendarmerie bu Kër Massar ak kii di Lat Diop yéene kaay bi ne yoo xam ne rek na ci bi nga xam ne rek fas yéene naa porter plainte kii di Ibou Dieng loolee lépp yëgle kaay bi dellu suwaat na ci yër ko ci ni mu gën a yaatu Sud Quotidien xëyee ni ki tey ji nag ci yeesal yi nga xam ne bëgg nañu koo indi ci règlement intérieur yéene kaay bi ne assemblée nationale ma ngay accélérer la cadence groupe de travail yi nga xam ne rek ay représentant ñeel ñetti pôle parlementaire yi nag ñoom ñoo ko teye woon ak ay représentant yu député non inscrits yi naka noonu ay représentant yu administration bu assemblée nationale ñoom nag daal dinañuy ndar képp nag lépp loo xam ne rek mooy waxtaan ñu doon amal ngir assemblée nationale daal di jooyantiwaat ab règlement intérieur ma lu ni mel nag àllarbay tey jii yem ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet ñaari fan ginnaaw ndaje mi ñu doon amal nag ci lañ fas yéenee jébbal kayit gi nag kii di Amadou Mame kay ci règlement intérieur bu assemblée nationale nag pàcc bi am solo nag daal dinañ koy romb conclusion yi nga xam ne rek moo tukkee ci groupe de travail nag tey jii nag daañu ko jébbal njiital assemblée nationale bu ko defee ñu mën a soobu ci liggéey bi le quotidien yëglekaay àddu ci beneen session parlementaire bi la yoon nag bu CEDEAO la yéenekaay bi ne Guy Marius Sagna moom nag ma ngay brouiller réseau bi bureau bu parlement bi nag ma ngay ñaawlu bu baax a baax nag kàddu yi nga xam ne moom la fa woon Guy Marius Sagna bés bi le jour feelu ko ko Guy Marius Sagna kay moom nag amal ay coup de soweto ca parlement bu CEDEAO ndax moom moomee nag dafa mel ne ku nekkoon ci làmb ji rek di amal ay kurpañ jëmale ko ci parlement bi Walf Quotidien ne ko kàddu yu dëgër yi nga xam ne rek moom la doon joxar bi parlement bu CEDEAO tax na ba Guy Marius Sagna jamono ji nag taxawaayam ak doxalinam nag ña koy ŋàññ àddu wax ci l'observateur moom itam xëyee lu jëm ci projet Sangomar ak première cargaison brut yi ko européens yeeg asiatiques yi nag jëwriñ ju ñu dénk wàllu wi ma ngay soññu pétrolier yi Vox Populi na ko lu jëm ci wàllu leeraange ak redevabilité nag ñeel projet pétrogazier bu Sénégal DG bu Petrosen Holding nag moom ma ngay indi ay leeral ci lu waral nag ñu war a négocier waat contrat yi nga xam ne rek moo soxal yu pétrole yi bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi ma ngay xam ne ne lu toll ci huit cent milliards nag ci ay bor amee nañu ko Petrosen nag war naa fay ñii di waa Woodside waa BP ak waa Cosmos enquête yëglekaay ne contrat pétrogazier yi kay nag Petrosen yoreel na bor bu toll ci huit cent milliards ñii di opérateurs yi Sud Quotidien ne ko ko retombé yi nga xam ne rek moo nar a tukkee ci pétrole beeg gaz bi kay Sénégal moo ci nar a nekk le grand perdant addu jëmale ci xew-xew bu metti bi nga xam ne rek moom la waa Caaroy sur Mer yeewoo niki démb yéenekaay yu bëree bëri xëy dellu soit si mu di ñetti gone yoo xamante nii dañoo fekk ñu faatu ci benn woto bu ñu gaare yéenekaay bi di Les Échos ne waa Caaroy sur Mer kay démb ci ab la ñu yendu rek ginnaaw bi ñu gisee ñetti gune yoo xam ne rek ñoo bokk benn njaboot seeni at ci ñeent juróom ci la toll daal di faatu ci benn woto bu ñu gaare woon yéenekaay bi di Libération di xam ni nag nag ki moom woto boobee jamono ji nag déglu nañu ko moom ak vigile bi nga xam ne moom moo doon saytu parking bi ab enquête la ñu ci daal di ubbi nag ngir xam lan moo sookee faatu ñetti tuut tànk yooyu jeux olympiques yi nga xam ne rek ci atum 2024 la ñu koy amal Sénégal fi mu toll nii mi ngi ci ab campagne ngir waajal jongante yooyee nga xam ne rek ngi ko jàpp ci atum 2026 président Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy xaar tey jii ca Paris mu fas yéene teewee nag ouverture bi nga xam ne rek moo soxal jeux olympiques yooyee ñuy amal mu di ab ndaje moo xam ne rek dina ko bokk kii di njiital France di Emmanuel Emmanuel Macron ñaar ñooñee nag daañu waxtaanee nag lu jëm ci wàllu sport de développement daañu àddu jëmale itam nag ci lu soxal base militaire yi àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram ak stade yëglekaay mercato bi nga xam ne rek moo soxal gaynde yi bi ne ngi koy séentu ca Palace Mbappé moomee ca Barça ci lamb ji la ñu koy jeexalee combat bi nga xam ne moo doxoon ci diggante Balla Gaye 2 ak Tapha Tine bi ma ngay xam ne ni nag CNG ma ngay solde ay comptam yi mujj nag ci diggante ñaari mbër yooyu ku ca nekk dagg nañ ci sa reliquat beneenu yëglekaay di xam ne ni combat